moi je vais tout faire pour nous pour le 24 aussi est-ce que nous sommes euh, invité à inviter une manifestation pour euh, Rufusque dimanche prince c'est là, comme ça a de une délégation parce qu'il y a une grande manifestation de la collectivité de Lébou le, dimanche 11 au terrain HLM de, de voilà comme ça nous dem a un peu ce que les gens vont faire en matière culturelle ak ak ak tur yu fa nek su ko avant bobu man euh, bon comme si inshallah c'est le au mois de février on va avoir deux séances de travail su ko defee man dina wax Alioune Badara bi mu recevoir len je vais demander à d'autres euh, gens qui sont dans la culture ñu aider aussi bien au plan financier que la dans la contribution dans la réflexion deng parce que amna ci ay ay récital yoo bon amna na ay kasakkat yu fi dess amna ay way kat yu fi dess et cetera et cetera yoo xam ne yooyu mun nañ ko def wane parce que dafa am mbir moo xam ne soo ko buggee dundal foog nga am ñu ko taxawee loolu dafa dafa am importance parce que comme tu dis Sénégal yàlla moo def benn mbir moo tax il faut aussi que bu seen festival bi Wakam c'est le meilleur exemple de ce qu'est la collectivité lébou parce que les gens ne comprennent pas que la collectivité lébou c'est le mixage de toutes les races du Sénégal yàlla moo def ne lébu su fekkee pas sa papa rek libou, lébu te sa yaay du lébu lébu nga le dellu def bu fekkee ne sa yaay rek mooy lébu te sa papa du lébu lébu et ça historiquement culturellement les gens dañu ko développé et c'est ça la vérité tey jii man su ma amoon su ma takkoon jabooru joola su demee ba màgg ba sant ji bañ ko naan dëkkoo fi or ci lébu yi am ngeen lébu yu sant korea à Rufisque du dëgg boo demee Cambérène am na lébu yu sant Gomis dëgg la bien sûr ah le maire de Cambérène sant woon Gomis Samba Bàccali ba Jàlla Wakaam si yaayam bokkul njaañeen am de lébu la

pour wax leen ne lébu am na sëriñ Dakar boo xam ne yaayam Ndéla Sow la tudd Massamba Ndéla saw nekk na sëriñ Dakar yaayam Sow la sant xanaa mënuñ ko ne pël nga doo fi falu man sama yaay mu nga dëkk dàngu ci biir ci Rufisque bien sûr mais ban mais seen yi du ñu seen seen jonn sant yooyu yëpp dañu dañu jaxasoo ak yi parce que mas naa wax benn séeréer mu naa ma ko dama la bëgg laaj benn affaire du jàng nga tubaab mu ne waaw ma ne ko soo mënuloo régler yow àjjana di lu baax soo mënuloo répondre question bi ma lay bëgg a poser doo mën na régler problème mu séeréer yeeg lébu yi mu ne ma question bi ne ko ginaar ak nen bu fi jiitu ko mënuloo régler mënuloo régler problème mu séeréer yi xamuloo ku fi da ngay fekk jaxas. mais ngor xam ma ngor doon xam moo ko am y' a peut-être une vingtaine d'années boobu j'étais dans le gouvernement yàgg na am ben go séré bu nek service d'hygiène ñu def sen visite domiciliaire yoyu. ngor la won. mu dem duggu ci kër gi duggu ci xam yi daanu xam les gens n'ont rien compris ñu génne ko xixi muy muy tremblé. ñu bàyyi ko mu dañ ko le mu ne xam yi mu duggal le titre parce que c'est seen dëkk kenn duggu ci ay xamb parce que c'est les les mêmes traditions Bo race, ci ci race sont peut-être quelques gens de de de sont yi dafa am ay race. ay race. ay des Amna ay <laughs> ah, ay du du race. du ah? exactement y des une côté alors il y ay te yokam yi koy fekk fekk ko ci donc le festival bi ngeen il faut que ouvrir xelu nit ñi ci li ce n'est pas sectaire ce n'est pas grégaire c'est un grand moment de syncrétisme de la culture sénégalaise portée par la collectivité Bouy. c'est ça qu'il faut faire et le réussir donc moi je suis vraiment dans une disposition d'esprit pour que xam bu affaire culture la vérité moi, les films Macky en matière de réalisation d'infrastructures culturelles, même si qu'il faut compléter le fameux travail d'Abdoulaye avec le musée des civilisations noires le grand théâtre il faut saluer ça parce que y a deux choses je crois que je suis l'une des personnalités sénégalaises les plus à l'aise pour dire que ce que Macky Sall a fait ici aucun chef d'État ne l'a fait non, voilà, exact. Mais moi, j'ai été à 28 ans, 29 ans, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. C'est à ça. Je sais plan l'État de déjà à l'époque. Il Macky Sall des yëpp boo xoolee des papier am yu ci a mais amuñu moyen def ko mais si il y mu ñëw egsi est-ce que est-ce que ci campagne bi gis nga un sportif bu ne gars nañ leen Dakar Arena wala nañ stade Ablaye Wade wala arène nationale remercier euh, Makassal. alors que depuis 50 ans nous tous sportifs pratiquants ba jouer ba diriger on se battait pour avoir ces infrastructures là Comment on avait dit aujourd'hui la seconde université de Dakar euh, Amadou Matar Mbou, ko mais tu ne crois pas que tu es au Sénégal alors une réalisation kenn mënu ko dit motax mané ma ne wu ñu né Macky Sall def fi dara xam lu ñuy xuloo Macky ma def li wala ku bokk Macky ma def li réew mi nak kenn mënu fee nek té duñ na mas a xas mbaa ñu mas a bañ may et cetera et cetera mais dal li xam mo am solo moy yeen ngeen fexé li ngeen nekkee parce que bo amé ku melni ni Mame Mbaye Niang mu sës ci président amna ci façon taxaway bo xamné war na fexé ba bu fekkoon ne sax ben samedi la 30 minutes ñi and ak yeen ngeen yëg ne président recevoir na la te bala ngeen di egg seen festival bi man dinaa ci xaw moom ngeen wax ak moom mu fexe recevoir xëy na fii le 24 xam nga programme mun na xat mais comme di ngeen koy gis mu wax président parce que li ngeen di liggéey nii jamono boo xamee ne bii ci biir réew fexe nga ba citoyen seen xel dal na la wóor ne lu mu bon bon si tu n'as pas un militant tu as quelqu'un qui n'est pas contre toi dafa am ci lu politique loo xam ne da nga noppal sa bopp.

dafa am bis benn vieux ñëw ci sangor ne ko waaw man barke démb ci dëgg la woon dama demoon fële ñu ci ñu xeex xeex yu metti sangor waaw lu xew mu ne ko waa ji dafa doon saaga mu ne ko waaw man dama bañ ko ma saaga ma politique sama frère yaa ngi fi xamuñu leen kenn du leen saaga donc il faut pas vous attarder sur ça nit ñi li ñu leen di yeewee mooy ne bii njariñ bii teraanga ci bi kilifa politique lay jógee ba boo ko ci woyee mu uy si la donc bu dee au plan culturel les artistes là koo ci aider ba mu fël parce que artistes yëpp ñi Sénégal yi ñëpp ñoo yam talent la différence mooy kii fexe nañ ba mu wax ci télé ba mu feeñ télévision kii fexe nañ ba mu feeñ ci rajo yi kii fexe nañ ba utal ko contrat tous ces jeunes là c' est le même talent xaw lu ñuy def xaw ma lu seen label mais bu leen jàppale tey ñu génn 2STV wala ñu génn TFM rek c' est parti du dëgg kon yooyu nag ngeen di tam ci artistes yi bon man li ma lu ma ci par exemple boo def benn benn organisation s'il faut appeler peut-être le ministre de la culture en disant et il faut nga wax aussi euh, euh, Mambay mu essayé woo Alioune Alioune Sow Aliou Sow plutôt le ministre de la culture parce que noonu ngeen mën a def ba jeunes yu topp leen ci li ngeen di def parce que les artistes sénégalais li ma yéen ma gën a xam boo jëlee cinquante artistes yu fees mais y sang yo yoo qui ñoo mais am ku leen jappal bu ñu am wa bu un ministre bo parrainer même jot da ngay attirer attention ci lolu mais mais comme un grand grand mais le suñu gaay bo gaay ma invité télévision RTS tu vois c'est des petites choses comme ça ci lañu mais baba mal mi tay soko na ñi ma

yooyu ma leen di xelal ni du ay parole en l'air ah yooyu nag ngeen di jàpp def nii euh, euh, kii itam ndeysaan borom ñaari baay yu niru loon te gaa ñu nekkoon gambi naka pareil pareil c'est comme ça que je le prenais bu am bu ñu kii ma dem et cetera et cetera donc donc yooyu ma leen di wax ni yëpp da boo leen ko defee da ngeen di noppal sax ministre bi waaye xalaatu woon xaaral moo tel ministre et cetera moo moo xam ci góor ñi la moo xam ci jigéen ñi la soo xoolee tey les les troupes théâtrales benn troupe théâtrale jigéen moo mas a joué en Arabie Saoudite devant le roi d'Arabie Saoudite c'est la troupe Maam Ndiare bu Yoff devant le roi ah kon nag waaw mu ngi nii ah yow la waxuñu et le roi le roi a dit que dans ce livre il dafa am teggin moo mu accepté de ñi fay fay am de xam nga ya nga fon parce que yàgg na xam ban année 2010 ah, avec Ali Badara ah, voilà donc xam nga yi ma ni c'est pas des propos en l'air parce que moi j'ai pas le temps de de raconter des trucs que ma leen di bu ngeen jàpp ko hein oui voilà mais c'est ça donc vous ngeen pas ko de def ko un pro programme à terme bo les génnee ci lu ci même s'il faut après il me dit bon grand sëñ quel est le contenu de ça est-ce que vous yokk ci li Etc. non non non mais moi j'ai suffisamment parce que moi je suis assez organisé c'est-à-dire que man que nous me se demande da may demander audience gisoo ñu ma wolé parce que je les de rendez-vous depuis depuis 4 heures ils sont pas venus ñu ma un téléphone ils ma un téléphone ba c'est comme ça alors donc c'est comme ça que faut euh, que l'on s'organise ba ngeen xam ne bu six mois di ngeen il y a des commencé taxaw vraiment pour le festival moi je suis tout à fait disposé à vous aider sur tous les plans à vous mettre en rapport avec euh, des des des des gens qui sont dans la culture lébu et puis je vais voir avec certaines personnalités yoo xam Bon, peut-être qu'ils peuvent sponsoriser, mais je vais regarder ça peut-être avec des sociétés, des, groupements qui peuvent aider, qui peuvent faire un label avec Vraiment content de vous Je vous ai pris beaucoup de temps, mais vraiment ça, <laughs> ça, a été un grand, grand plaisir pour moi. Inch'Allah, le 24, nous avons votre participation. Ah, mais papa ana lay wax ci li nga xam ne EDB TV international. mu ne. EDB TV moy télé bi nga xam ne am avion ngay wax mais mais xam nga man li nga xam mom la gëm moy télévision yi ngi di dans les villages ou des groupements de villages lolu dafa bok ci leen xam ne war permettre de contenir les réseaux sociaux et l'influence des de télévision télévisions euh, euh, euh, occidentales. et ngay encourager télévision yi. di ñaan yàlla ngeen mu mu yaatu ba am doole.